jàmm ci gox bi di gumun di jiital ci nuyoo bi itam suñuy wayjur yi nga xam ne ñoom nañ bokkal jotaay bi amaana buñ ko tegoon ci teggin ak yar ñoom nañ koy jox waaye dañuy faral itam di dégg kilifa yi souvent ñuy wax ni jëfe ndigal parfois dafay ëpp doole wane yar te ginnaaw ndigal la bu nga xam ni dafa jugee ci ñoom ngir ñu tijji leen jotaay bi dafay jaadu di leen dalal bu baax je pense que coordination bi fi ñëw di waa mouvement ànd defar bu euh, monsieur Abdoulaye Ndiaye Ngalgu di ko nag teg ci loxo ñas mi nga xam ni moom moo jiite wàllu jeunesse bi ah fi ngeen ñëw tey nag muy gumun je pense ni ngeen ñu gisee ñu toog nii rek nañu mel euh, yàlla dogal na jotaay bi ñu ko teewee mooy rek suñuy mag suñuy grand ndaxte je pense que Mamour mi rek bu buñ ko joxoon bu waxee dafay daal di doy sëkk waaye nag comme tey ñaari mbooloo ngeen fekk si muy waa mbootaay bi ak li nga xam te ñoo di waa association des jeunes pour l'émergence de Goumoune te Mohamed Fall di suñu rakk jiite ko je pense que mën nañu wax ci seen tur ah man nag li ma ciy wax xëy du bari mooy c'est pas la première fois pour man ay homme politique wala ay autorité ñëw fi waaye lii je pense mënta bañ a ñàkk wala mënta ñàkk ci développement nak nit ki itam pour ñu mën a saafara say jàngoro il faut que ñu xam d'abord lan moo lay metti yàlla dogal na nag ñun suñuy wéjur nañ am moy suñu yaay yi ak suñu rak ak suñu gox développement nak da fa a commencer par soi-même manam lolou tuddé développement personnel yalla dogal nak je pense que jeunesse bi ñi mënu ñu dem bàyyi leen ginnaaw ndax bu fekkee développement da fa wara jaar yoon il faut que ndaw yi juk and ak ay mak ndax xeyna ndaw ñi mënu ñu am kartan waye mak ñi mënu ñu am xel té amana ñaar ñoñu fu nu bolowé rek mën soti ndax mag ñi doon wax naan ay sànq lañ sax buñ booloowee Watwell et je pense bien que ñoom Mohamed ñii di waa AGEC ay ndaw nañ mais avec les moyens du boor ñu ngi jéem di sonn subaak ngoon gu dégg bëccëg di set setal di bale lu ne ñu koy dugg ak génn lépp rek li leen ko jaral mooy peut-être seen koñ suñu yaay nag gis ngeen chaque jour itam ñu ngi dang-dangi ngir njaboot ak sutura donc je pense que ñun di ay ndaw muy xale yi ñëpp je pense ñoom seen i bëgg-bëgg moo jiitu ñun suñu bëgg-bëgg

ni ngeen ko gisse rek ni la mëna démé demee di leen wax nak dal leen ak jàmm xalé yi ñu ngi ni di wa ajek je pense que gumul mom quartier la bu nga xamante ne si biir Tivaouane mënuñu lim premier quartier te boolewuñ ko ci yalla dogal nak ñu bokk fi ñun itam ah li fi nek nak ñom Mamour xamna di dinañ ci kàddu sanni kàddu ci kanam bari na fi ay bëgg-bëgg yu nga xamni buñ sanoon ñu taxawoon ci comme ñu ci taxawé yenen quartier yi ndax dañ ci am part de responsabilité bo élection jotee né dem voter ji lépp lu nga xamanteni aussi xewna ci biir dëkk bi pour man war nañ ci mëna a gis seen bopp Lolou, je pense que moy la réalité moy dëgg gi intérêt nak ñaar la muy intérêt commun ak intérêt personnel ñun on ne parle pas pour notre intérêt personnel on parle pour l'intérêt commun de tout le de tout le de tout le quartier de Goumoun donc je pense que lottu na ci wax ci sax. parce que légui yaakaar naa nit ñi dañoo wessu ce qu'on appelle le politique politicien donc mom euh dañ ko wessu donc gatché ngalaama Ablaye ngal gu ñun ci dëkk bi lañ dëkk te wax dëgg fa yalla xëy na man miinu ko moom en personne mais dégg nañ ay jëfam ak ay yëngatoom yoo xam ni mu ngi koy def si dëkk bi donc loolu tamit dañ koy rafetlu parce que kenn képp ku jóg nga gis muy def ay financement di jàppale ay nit di dimbali ay ay nit si ay projet loolu lu ñu rafetlu la. ku ñu jàpp daal ñu jàpp la man Galou Gui musuma koo gis xawma ko mu wallaahi laazim musuma koo gis mais dégg naa yu rafet yi muy def man dinaa yab nit sax mu koy gërëm te man xawma Galou ko kon donc man mën naa jàpp ni nit ku baax la. te bu ñëwé ci yow ni la dama bëgg ñu and liggéey ding ko ding ko nungu maire yaangi ni ay financement lañ bëgg dañuy gis dëkk yëpp di am ay financement mais egg fi jeune yaangi ni ay xalé lañu jang nañ am nañ ay diplôme ku leen joxon ku leen joxon tewaan sax ñu yor ko mais amuñu benn opportunité pour ñu leen jappalé parce que nit pour mu dem il faut ñu jappalé ko kenn mënut a jékki-jékki rek dem sa yoon mënut a nekk impossible président de la république sax buñ ko jappul won fi mu nek du fa nek dañ ko jappalé xéxal ko ba mu nek fi mu nek kon donc ñun tam dañu bëgg ñu ñu jappalé ñu jappalé leen mais bañ leen wootalee ñu gañee ba léegi gisatuñ leen xamatuñ leen xamu gis man sax man meeru Tivaouane sax xam naa ko xawuma ko xawuma ko man xawuma ko buñ daje woon ni du ko xam kon donc kooku mënoo ni defal na ma dara deful sama koñ dara kon nu ma koy jàppale kon ki ki ma soxla kooku laay jàppale te boo leen amee gumun am ngeen lu bari nag maa ngi leen wax loolu ñii toog boo leen amee am ngeen lu bari parce que ñun doxuñu ciy caaxaan xam nga lu ñu yaakaar suñu ñàq bu ñu xëyee fii koñ bi doo fa gis kenn ñëpp ñii jàngi nañu ñii liggéey nañu seen atelier et consort amul kenn kuy xëy taxawaalu fi loo leen bëgg ak conditions noo leen ko bëggee rek ñu defee ko doon man dama leen di rek man maa ngi ci yéen tey ak suba parce que ngal gu man mosuma koo gis mais gis naa yu baax yi muy def ma koy dégg sama nop léeg-léeg ma yeb client sax muy wax galgo te man mosuma ko ma gisoon buñu dajewoon ma ko xam du ko wallaahi lazim ma ko xam mosuma koo gis mosuma koo gis mais damay yeb nit muy wax lu baax lu mu def lu baax nag bu ko nit dee def yow nga koy dégg te xamoo ko da nga bëgg man dama koo bëgg te gisuma ko kon nag jàppale leen xale yi xale yi nañ leen jàppale bu baax a baax lu ñu bëgg rek ngeen defal leen ko ngeen am ñu incha allah te boo leen fi ñëwaatee sax di ngeen gën a xam ni am na fu ñu leen teg ndax maamay mi parce que maamay du ànd ak koy caaxaan loolu moom lu ma wóor la du ànd ak kuy caaxaan te xam na waa Guun parce que fi la dëkk. yéen groupement bi maa ngi leen di sant bu baax ndax tey xat na trop te teewul ñëw ngeen ndax ku ma ci li ma gën a neex mooy ku ma ci ne Ablaye Ndiaye rek mu jóg. koo ci ni wax Ablaye njaay mu ne bu dee Ablaye Ndiaye dinaa ñëw Ablaye Ndiaye nag gëstu nag jigéen ñi ndax jigéen ñi ñu ngi koy xaar boobu ba léegi te yàgg na xale yi nag li ñu wax moom laay wax man te ñoom li ma waroon sax dañ koo wax waaye nag ku leen jàppale ñun jàppale nga ñu ndax ñooy suñuy doom te te ñoom la ñu am ma bëgg Ablaye Ndiaye mu gëstu leen te jàppale leen bu baax nag xale yi yéen tamit lii tax ngeen mën a li ngeen jooytu ni ngeen mën koo am mooy ngeen jàppale Ablaye Ndiaye te wuti ay carte d'identité bu élection yi maire yi jotee ngeen voté ndax ñu mën fee jëlé keneen ku fi nekk tek fi ablay Ndiaye bu boba lu ngeen di joy dinañ leen ko defal bu sobe yalla asalaam. mais naxé politique mom jeexna na nit ñi kenn mënatu leen nax ndax ko nax ci biti mu nax la ci biir mbañ gatcha ga bo ci dem do and ak kenn. wax ji moy nañu defal carte d'identité yeen jeune surtout ah ñu daadi di fal ko monsieur ablay Ndiaye galgu Sénégal jëm kanam merci beaucoup. ñom yag nañu gis ay politiciens di fi ñew ce n'est pas la première fois. politiciens yi du fi ñëw di leen wax naan nañ leen defal lii nañ leen defal laata gisuñu ko mais bu yàlla dogalee ba tuyaawan am ku mel ni Ablaye ngal ko mu nit koo xam ne kan moom moo mën a wax ban poste la yor fii tuyaawan kan moom ko mën a wax lan la moom xam nga lu mu doon est-ce que député la maire la ministre la gouverneur la amul benn poste boo xam ne moo koy occupé ci état Sénégal entrepreneur la entrepreneur la yàlla dogal as tout la mu am mu si jàppale askanu Tivaouane nga dem ci wàllum santé ga gis hôpital bu Tivaouane lu fa andi ci wàllum éducation te loolu sax mën naa ne jamono bu ñuy wax waxi trois cent table banc ñun ñoo ko fi njëkk xalaat moom moo ko njëkk wax ñi xam nañ ci dara pour lycée bi te ba muy wax lycée bi proposé nañ ko ne ko Tivaouane école douze bii am na ñaari classe yu ñu fa yu bees yoo xam ne amul table banc donc loolu non yep xalaatoon nako muy ko xamne manam lamuy gis ña tok sax gisunu ko donc kok su jógee ne day defar war ngeen ci am yakar bu baax man deja ke musuma xamé politique musuma politique musuma politique li tax ma ñame dugg ci abdoulaye Ndiaye du lenn luddul li ma gis muy def ma am ci mom yakar motax ma jóg pour la première fois de ma vie manan ma ngi jóg di soutenir nit ci walum politique bokku sama mbir bokku ci parce que damaa gis ne moo ngi defar Tivaouane laa juddoo de sama maam moo ngi fii jidde fa la gaañoon ndeysaan yàggul dara donc fii laa bokk su ma gisee kuy defar Tivaouane dama siy jàpp te yéen waa Gumun da nekk ni ñoo xam ne man gëm naa ne bu ngeen nee lii la du dañ ndax dund naa ak yéen solidarité bi ngeen di woote dafa fees dell ci yéen dama cee xam dara yor naa fi seen i gone di leen yóbbu fu ne Tivaouane ñuy fubale te fu ñu dem li ñëpp di seetlu mooy yéen la moo leen may doole ji. dooleel dara du ko may lu dul déggoo te mo len dal waaw donc lolu day lo xam ne dañ koy rafetlu benen bi mu soxal li nga xam ne mooy jeunesse bi jeunesse bi li ñu ëpp ci li ñuy wax moy problème emploi problème emploi manam walum liggey te walum liggey nak mën na ne li mu laaj dafa bari du question que ne diplôme académique donc manam ay BFEM ak bac may wu liggey fo nga am diplôme professionnel te diplôme professionnel yoy nak su ma see dikk damay contane ndax abla ndjay ren. bu ñu seetee boo yi am bac dafa génne euh lo xamné da ko jàpp pour xale yi muy euh, ñas bourse yi très bien 150 bourses lo xamné xam toll na ci valeur 1 un million 500 cent million cinq élèves bu né Ablaye Ndiaye financer lolu ngir xalé yi dem defi formation pour bu ñu génnee mën am liggéey man lolu su ko gissé wax dëgg saa dama am fit dama naan kii par force dama koy jappalé dama wax kan moy Ablaye Ndiaye Ngalgou. parce que Kamou daf ko wax léegi Ablaye Ndiaye Ngalgou simple entrepreneur bu jóg yor li mu yor waroon koo dundee ak njabootam wala mu lekk ak mbokkam wala mu téye ko def ci leneen moo jóg jëli mu am wàcc bu ko bokk wàcc waawan te ba mu wàccee ba léegi defe naa ni xam nga wax bala muy neex wax wax ji nekk loo xam ne ko xam mooy delluwul gannaaw lu mu am nangu na ko bokk tey ji boo génnoon léegi defe naa tasantee xale bi bot saag bi boo ne ko Ablaye Ndiaye Ngalgou dinaan Ablaye Ndiaye Ngalgou ku baax la day dimbalee day def nangam donte bu fekkee maîtriser situation bépp Ablaye Ndiaye Ngalgou inondation am na fi barki dem ñëpp kër kàcce nekk ci biir ndox yi mu wàcc sol ay botam te moom yàlla da koo may leen dafa nit boo xam ne damay wax ñu ni ànda sax gérer ko day xaw a jafe parce que moom dafa xam di social xam luy baax dafa jékki-jékki rek daaneel mais ma góor tuwaawoon gi ñëpp ñu ngi ci mi ñun ñu nekk fi li jaadul nan wàcc bokk ak ñoom mi yónnee ay bot jënd

bu dee ci su koor jotee ma nga ca sukkari koor ya su gàmmu jotee ma nga ca ceeb ya su leneen jotee lu nit bokk ma ci ku deele ma nga te mu xam ko wala mu xam la wala ngeen ko dina wàcc ak lu mu fa mën a wàccee jàppale la soo amee soxla day faj ba faj ko mu xamul barki dem dañu taxaw terrain handball bee problème terrain ma ko fi indi ay jeunes ñëw ni ko dañu am suñu benn malaat problème bi li a faj defe naa vidéo la boo xam ne mi ngi doon daw il s'appelle Lansana Fogni gii la dëkk xamu ko xamu ko xamul xale yi xale yi danoo ko pare mu daal di ma jëlal ma numéro téléphone xale ma jël ko transféré ko mu xëy ooma ni ma xale yi nee nañu 500000 lan ma waxoon ni moom la ñu yor waa ji 1 million 500 moo koy faj maa ngi nii ñoom versé nañu 500000 yi damay dem hôpital principal su ma demee ma versé beneen un million bi. bi mu ko demee verser beneen un million bi dafa am information dama koy lancer waat parce que am na ñu ko xam ne xam naa après bañ ku dégg ay wax ndaxte fi ñun bi ñu wax dañ wax boo fayee un million cinq cent buy ñëw dañ koy jël loola la ñu xale wax moom mu yëkkati un million pour nu faj xale bi ne ko un million cinq cent yi dagg dañ ko léegi dañ ko defaraat beneen facture pour préparer ko beneen opération mu wax ma ko ma ne ko yow de sa jaan wàcc na mu ne mais mais maam Gouré tamit kenn ko seetaan ma ne ko yàlla na la yàlla dëgëral. ba nga mën a am loo ko mën a defee lool mais soo nee ni dinaa jox un million dem yëkkati un million versé damay bañ ëllëg ñu Lansamiin doon wax fajul ko ndaxte Ablaye Ndiaye ndaw sa neewoon na ni da koo faj te fajul dafi wax da ngay wax lu leer kooku mooy Ablaye Ndiaye Ngalgou dina faj ku mu xamul dina faj ku mu xam suy maye day lox tey jii ñun tey jii li ñuy ñaan mooy Ablaye Ndiaye Ngalgou recevoir leen wala mu ñëwaat seen digg kër gi parce que bu ñëwee di ngeen xam ne lépp dëgg la Ablaye su ma doon ñëw tey ni ko dañuy dem guumuun danoo jàpp ne war nga faa maye mille billaahi balaa génn gumul may fi téeméeri junni may wax nag ni ci li ngeen xam ne nag comme da ngeen ko fi wax te mi ngi guddi doo am beneen programme bu ñuy dem du dinaa fi jël quelques engagement yoo xam ne maa koy jël te incha allah jàpp naa su demee dina ko wax muy affaire wu nettoiement yi ngeen di wax yéen jeunes yi bu soobee yàlla association bi man maa ko wax dinañ leen fi indil balo bale rato peel brouette ngeen gën a góorgóorlu mën ci liggéey. parce que nag olof da daan bala nga naan naam danga fay ne sama mbokk jigéen ñi nga xam ne kenn kenn du ñoom ñun tuwaaw nañ juddoo fi la nu màggee lii suma frère bi wax ci gumu nit ay la yoon mosu dégg leneen li ngeen di sori sori bu doon da ngeen nekkoon ci safaan kon ba le siiw na mais kenn déggu fi dara kon jàmm rek moo fi am ma leen di béral ni leen defe naa ne am naa ñoo xam ne jël fii seeni fiche financement jox ko maam defe naa am na fii am na ñu maam may jël seeni carte d'identité bindi leen seen fiche financement financement traité nañ ko démb si kantanu yàlla le 22 suñu waree samedi ja ca toppaat danañ ko lancé ca terrain UPIS ma ci profité waale yéen yéen a njëkk am information xam naa ne Daouda Sam mi sax amul information bi mu la lan moo lay lan moo sa pour nga am appartement ku ne xam na location Dakar nga ne ko 300000 par mois caution 600000 mun la yow dinaa la jox 1 million ndax Dakar nga ne. yow foo ne nga ne man maay président association université bu Thiès yéen dinaa leen ñaata weer nga ne ñaari weer caution ñaari weeru kii euh, euh, paiement mu jox la di ko def ba université bu jeex bu soobee yàlla ngeen ak lan ñu ne ku ne xam ne étudiant mu la amu fu may tëdd ndax ñoo fi ëpp soxla mu ne daan ni mat laa ñu ne waa tuuti ñu daan ni ñun amuñu imprimante mu ne dinaa instant fal teg ca juróom six imprimante ñu ne déet waaye tegaat ca six ordinateur kon loolu defe naa yéen ñii jeune ki faluwul nekkul maire nekkul ministre nekkul député su ma nee def loolu fitam rëy na am na ngor am na yéene kon jaadu na yéen étant jeune ngeen xam ko loolu dama leen koy wax muy nit ku jare jàppale kama wax na ko léegi les primo-votants yéen xam naa ku ci xam defe naa yéen ñi ay primo-votants la ñu doon su fekkee da ngeen am ay carte d'identité parce que carte d'identité yi bu dee da nga doon def examen day génn sans nga am nga nekk ñu inscrit sur la liste électorale bu ñu ubbee liste yi li koy faj ak li ñu bëgg mu am mooy ngeen dem binduwaat am carte d'identité taxut a voté bu dee da nga am carte dante te kenn inscrit la képp ku ne war nga ubbi sa carte d'identité xool si gannaaw nga xam ba xam yow tu es inscrit ou pas inscrit su dee non inscrit la nga dem bindu jowaat yóbbu sa carte d'identité ñu bind la ñuy paas waxaale tamit yéen ñi ngeen xam ne suñuy waajur ngeen ak yéen xale yi koñ bi ñi fi nekk am problème kayitu juddu te ci 18 ans war a voté boo leen dikkee ñu dinañ ko porté membre kooku yow dama la koy dégg. gis nga suñu président. bépp ndaw bu nek ci Tivaouane liggéey bo ne dala cey jàppale ndax tabaski bi passé ngagn mi xar yi président doon wër diko jënd mom jënd nañ xaram parce que it day yëngutu ci loola président bu xamé li la ndaw ji yëngutu mom da ko cey gëna a kon ngagn yu ci ñi ngi lay ñaan yow ci yak seex ngeen fassante kóllëre ak suñu président ngeen jàppale ñu fi ci guumul ndax ñun yaakar nañ leen parce que nous sommes xam parce que nous sommes ñu am fulla am fayda président Ablaye Ndiaye comme niko Kamara, « Ablaye Camara waxé yittém qui ci Tivaouane du def dara té du ci parce que tay ji bourse yoy wax 150 mi ngi millions man mi ma doon bind ci ñuy dem am Dakar am ñu joggé Mboro té ña formation formation def formation pour am diplôme la pour mën déposer ci bërëbu liggéeykaay pour mën mën leen jël liguey fofu ñu am fa luñu suturlo suturloo te defe naa ni boo ndaw mu am qualification dem ci bërëb déposer fa diplôme ñu ñu jël ko fa muy fayeeku di ci dimbali njabootam dimbali nga askan won bok yépp kon donc président wul ndaw ñi bi ci des moy Amna yenen bourse yu mu wat muy ay bourse de formation 80. en boulangerie ak pâtisserie yooyu yëpp mu jagleel ko ndaw ñi te loolu dinaa wax ñoom Ahmed Fall ñii papier yi nga xamante ni moom lay àndal ak ñi nga xamante ni bëgg nañ koo def ñu wax leen nan la nan la pour ñu mën a déposer ñu mën a defi formation yooyu man daal li may ñaan mooy askanu guumul Fall xam na ni ñu am pas-pas ngeen fii ci école set te it xam na ni benn bopp ngeen li leen di ñaan daal mooy. ñu fasante kóllëre te xam ne ki ñu àndal di Ablaye Ndiaye Ngalgou lum la wax dina ko def defe naa ni ñëpp gis nañ li muy def ci Tiwaawan tax léegi laay wax maam may ni ko dinaa fexe ba korne nag ñoom ngañ ak ñoom seex ak ñoom Mamour pour jeunes yi fi nekk yëpp président daat leen recevoir ñu waxtaan buñ ca jógee jigéen ñi defe naa ne président ñëw na fi mat na euh, attaque lu tag waaye dinañ leen woowaat ñu gën a féddali su kóllëre fii ci guumul ñi ngi gërëm ñi fi teew ñëpp té défé na né tay ji liñ fi taxat euh, tok moy ñun ñëpp ñu jappanté pour xol nan la ni jëmele suñu tiawon kanam alaykum wa rahmatullah mebet yiñ fi waxoon amna ay nit ñu fi indi tontu waye man duma ñew gumun ba joggi fi té nuyu ma sama xarit Mbay Fall damay bañ mu dégg ma fi ni ma ñew nga gumun ma fay sama xarit yàgg lool kon maa ngi koy nuyu di wax nag nii pour ñu tëj waxtaan bi man dinaa jël benn engagement mooy dañ fexe lépp ba jataay bii ngeen am kook président ci lu dul yàgg ngeen toog ñi toog ngeen wax mu dégg wax delloo leen loolu ñas nang ko coordonné ak mbay Samb ñu bool leen ci audience yi ñuy recevoir am loo xam ñun mën nañ koo tontu mais am loo xam ne moom moo ko mën a tontu liñ ci mën a tontu suñu jigéen suñu xarit wax na ko te xam naa bu ko waxee mën na ko mooy bu demee ni ko gone gu mun lii la ñu bëgg lii la ñu bëgg dana ko incha allah samedi bu may ñëw indil leen ko beneen bi nag mooy dafa am lu ngeen fi wax. mooy làmp yi ak tali bi xam nga làmp ak tali moom état ko moom tey jii bu Ablaye Ndiaye yeewu woon indi ay poto di samp dañ naan ko sempil ndax amoo ci droit te boobaa da koy sempi bu dee ci wàllu tali tali ci euh, état dafa cher 20 kilomètre de route goudronné benn kilomètre 400 millions lay jar benn kilomètre kon ni mu len meuna dimbalé ñu wax koko mu mu tam té dinañ koko wax di ngén koko wax day dem séti kilifa ya ca kaw wax len ni len goumoun li ak li moy sen soxla taxaw di pousser comme ni mu ko défé daru salam ba ñu ñaxto ni da Salaam tali bi fi yaq ba mu ko yégué dox na ci wax na ko ba ñu ngi defar tali bi kon bu ko yëgee dina ni dina ci dox dina ci wax am leen loo xam ne mën na ko mais kooku dañ lay bàyyi bu ngeen toogee wax leen ko tali bi ngeen doon wax bañ ko waxee mu xam ni moom euh, mën ci dara daa dem wuti ay camion yoo xam ne ay latérite la mu sottil leen ko yëkkat téeméeri junni jox len pour ñu défar ko rang-rang loolu buñ ko amone en attendant mais bu ngeen bëggé mu nek li ngeen ko wax muy responsable da ngeen koy jox mairie Tivaouane bis bu ngeen ko joxé mairie Tivaouane nak am ngeen sañ-sañu poñe ko ni ko yaa ñu waxoon ni ñu mail la lay jox jox nañ la mail bi kon indi lu làmp bu ko wul bu wa ngeen xamni li ngeen waxante mom defuko mais fim ni yoro nii yoragu ko mënagu ko bu yekete di ko defar dañ nan ko moy président Ablaye dal su ngeen bëggee ngeen def ko maire. leneen limay may moy lambi politique dafa sajj xam ngeen élection mom bu jégesé di ngeen gis ku ne ni dana yo dëkk bi juróomi at gisuloo ko mu de élection ñëw mu ñëw ni la mayaat ma ah boba nak ngeen wéy seen xel parce que kula la defarul juróomi bu ñëwee ni la mayaat ma ah bu boba war nga xam wéy eh, sa xel te nag nit ñi leen fukk dafa yomb kon préparer leen seen bop xamni di ngeen gis ku ne jamono yuñ toll amna ñeen ñenn ñoo xam sax bayyi won nañu dem nañu dakaru wote fa ñu gagné leen ñu demaat dakaru wote fa ñu gagné leen ba jaxal nañ ci politique ñun léegi Tivaouane la ñuy retraité see nee maire bi lañ soxla di ngeen leen gis préparé leen seen bopp yéen daal bu fekkente ne président Ablaye ngeen bokk bokk leen ci te ni ngeen ciy bokkee nag daan ko wax mouvement bi dafa am ay cellules maam may boo jogee nga laaj ko mbay sam ay cellules loo xam ne cellule bu nekk ñaar fukki nit la en la ko jox nga monte cellules yi carte d'identité bi moo ci carte électeur moo ci nekk sa tur ak sa numéro téléphone ñu xam ne guumun mi kat montel nañu nangami cellule booba waa ñu xam lii suñu yëf la ku fi duggit ñun kaa fii kat ab lay Ndiaye fi nekk lii daal laa bëggoon ngeen comprendre ko ngeen doxe ko te ngeen waajal seen bopp te xam ni guddeeg bëccëg nawet ak noor di ngeen gis ku nekk kuy ruur waaye ku ñëw daal lank leen neen ko ñu ngi ci Ablaye Ndiaye Ngalgou ba mu jeex loolu rek laa bëggoon tëjee leen sant leen gërëm